voilà euh, liguey biñ doon liguey démb ba légui actuellement ni egsi nañ ñu ngi Lac Rose donc bi nañ ko canal ba ngi déverser ci Lac Rose conduite canal ngi nii ñu ngi actuellement sur le Lac directement donc euh, ça fait un couteau à double tranchant parce que tant yi ñu wax naan le lac est en train de dessécher euh, et que vraiment le lac est menacé donc actuellement nous suñu les milliards de mètres cubes qui se déversent actuellement sur le lac xel Nadal. et tout ceci a été fait grâce aux efforts fournis par M. le maire et que des mouvements qui kenn ne lawul matériel sur le terrain actuellement nous avons euh, sur le lac xamna ministre de l'environnement ak ñoom ñepp waron nañu gis li xamne lak biñ doon tiit moo desséché ñun dé liggéey nañ ci ba nga xamne amna yaakaar wa vraiment mi ngi ni gis ngeen ko c' des milliards de mètres cubes qui se déversent actuellement sur le lac Rose voilà liggéey bi euh, 老了，嘿，走！你千万站走！我站领导，我站领导 kaw da nga danga mu ñëw si kaw 1 2 3 4 ndànk ndànk ndànk ndànk Kinh dây. Đó. Đó. Bắt bên mình được rồi, bắt bên mình được rồi, bắt bên mình được rồi, bắt bên mình được rồi, bắt bên mình được rồi.